Euh, premier point Aliou Sow ngay ñëw reveniraat ci assise bi. waaw assise bi assise euh, bi euh, lu lu luñ ci gën a mën a retenir mooy li nga xam ni moom mooy kii moom mooy yor sooklu sooklu démocratie bi nga xam ni suñu démocra démocratie contemporaine je dis en général. Mm-hmm. maanaam ñu nekk ci réew moo xam ne dafa am benn équilibre des pouvoirs. Euh, tey jii nag waxtaan bi amoon au niveau de du centre CICAD euh, là. international euh, xaw ma lan. xaw ma Abdou Diouf Abdou Diouf te Diamniadio mhm. eh bu li fa xew c'était spécialement pour def ay waxtaan. Mhm. waxtaanu xel comme il l'a di le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Mhm. eh bien ñu jéem a réfléchir ci tekk ak tey ak xel. comment faire. pour améliorer fonctionnement justice su réew mi nan la ñu war a mën a def pour que mu mën a dox normalement ba pare ñu tenir compte des expériences mm. précédentes des surtout mauvaises expériences précédentes ba nga xam ne mm. eh ben bu ñu ko defee dootu ñu dellu ci waat un jour di mm. waxaat ci waxu ay euh, euh, assises wala ay ay ay rencontre ay machin pour la justice donte sax Euh, justice dañ koy améliorer tout le temps au fur et à mesure du temps. Mm-hmm. parce que euh, mbir yi day évoluer sociologiquement nit ñi dañuy évoluer donc day am ay mbir yu bees donc il faut toujours ñu ñu koy adapter. Mm-hmm. mais euh, le fond mu nekk lu vrai le fond mu nekk lu lu lu jub le front mu nekk loo xam ne day doon dëgg ba nga xam ne population bi en tout cas dans sa majorité dina si mën di adhérer ba nga xam ne bés bu ñu yoon. tegee euh, dara cim réew eh kenn bañ ci dute ñu xam ne au moins dañ ko def euh, te affaire kumba am ndey ak kumba amul ndey du ci am en réalité le résumé c'est qu'on puisse comment faire pour avoir confiance en cette justice lu tax ñuy douter ci justice yooyu dañu war a def en sorte que ni loolu dootu fi amati à partir de ces assises là bi nga xam ne une semaine lay durer ce week-end ils feront une pause et puis le début de la semaine prochaine ils reprendront jusqu'à la fin de euh, la semaine prochaine te loolu gëm nañ ni dinañ ci génnee dara buñ ci génnee dara nag ce serait une bonne chose mais man dama bëggoon xam encore une fois euh, eh li nga xam ne moom moo doon rapport précédent Euh, euh, euh, xam nga bu fekkee ni da ngay raxas. Mm-hmm. dangay da ngay defar kër. Mm-hmm. di ko ménage boo ménagé ba pare. Mm-hmm. il faut que da ngay bale avant ngay ménage ah. te boo balee ba pare il faut que nga peut-être nga wut ndox ak siwo raxas ak yu demee noonu. mais boo balee ba pare balaa ngaa jël siwo bi def ci ndox pour continuer le ménage. eh ben il faut peut-être que li nga jot balee ba pare nga jël ko nga tuuri ko ci mbalit lan la ñuy tuur tuur ci mbalit. tey ji nii lan mooy mbalit mi nga xam ne moom moo nekk ci biir kër gi moom la ñu balayee mhm. bu ñu ko balayee ba gis ko ne lii la mhm. après mënatuñ ko bàyyi ci kër gi il faut ñu génnee ko dem tuuti ko ci mbalit bi mhm. éliminer ko définitivement pour continuer à nettoyer avec peut-être de l'eau léegi euh, euh, lan mooy mbalit bi lan mooy problème mu réew mi en réalité ci wàllum justice ba nga xam ne tey ji nii assises yi euh, ñu ñu ñu mën koo woote je Euh, je je crois que li ñu war a def euh, euh, je crois que en général sax mbir mi lépp lépp lépp lu ci bari baax na. parce que justice amul justice bu parfaite lu ci bari ci réew mi tegu na fi c'est juste que ñii ñi ni ñuy organiser dafa am loo xam ne mënul ñàkk ci démocratie comme ni ko Bassirou Diomaye fay waxee te journaux yëpp génne ko parce que mooy li gën a am solo. mooy ñu ñi ñu fal. Mhm. dañu war a doxal. mais ñi ñu fal bu ñu waree doxal dafa am lu leen war a encadrer pour ñu doxal ko normalement euh, dañu ne ci doxalin bi ñu war a doxal il faut que mu am benn euh, système buy équilibrer yenn pouvoir yi mm-hmm. ñi nga xam ne dañu leen fal dañu war a continuer chaque jour di teg ay acte par rapport ak ñoom seen gis-gis waaye acte yooyu ñuy teg dafa am ñeneen ñoo xam ne dañuy jàkkaarloo ak ñoom mhm. euh, te dañoo perte ñoom tamit bëgg ñëw ci nguur gi ñoom tamit dañu am beneen gis-gis waaye loolu il faut que jëfin boobu xeex boobu ci biir démocratie il faut que mu set mhm. te setin boobu euh, euh, ki koy organiser di ko war a équilibrer mhm. mooy mooy justice parce que ku nekk danga am ay aq ak yelleef par rapport ak sa position que ce soit du côté de l'opposition que ce soit du côté de ceux qui sont au pouvoir sachant que c'est des concurrents kii dafa bëgg continuer di toog ci nguur gi tranquillement di gouverner et puis peut-être continuer waat di gouverner au travers d'autres élections kii dafa toog ci opposition bi bëgg def kam talaay kàttanam parce que gis-gis yi dafa wute ak ñi nekk ci nguur gi pour mën a récupérer euh, mun koo récupérer nguur gi ndax ëllëg mu mën a doxalee neneen lu dul nii li ñi ñi ñi fi nekk di def donc loolu faisant ça fait euh, ci xëccoo boobu dafa am benn koo xam ne dafa am avantage kan la mooy ki nekk ci nguur gi parce que dafa am benn wàll bu mu am ci justice bi nga xam ne pouvoir la aussi le pouvoir judiciaire wala bi mu ci am moom mooy dafa am benn espèce su euh, bu muy am ci justice bi te contrôle boobu des fois euh, euh, bu fekkee ni dafa nekk de mauvaise foi wala dafa sentir ni mun na parce moom mooy le chef suprême de la magistrature de la magistrature et loolu moo tax nag moo tax ma ne avantage boobu la am par rapport à celui qui est dans le mais est-ce que avantage boobu mu war a continuer di am parce que effectivement ni ko Bassirou Diomaye la ñu fal te ñoom ñoo war a doxal avantage boobu moom est-ce dina ko doxal honnêtement parce que finalement dootul affaire u euh, euh, affaire de honnêteté la nga nekk ci nguur war na mën a tax nga abuser ci parce que tout simplement dafa danga am avantage par rapport ak justice bi nga xam ne am nga ci benn forme de contrôle mais discours discours bi mu def moom ku ko déglu mun nañ ci rafet njort. voilà mun nañ ci rafet njort xam nga lu tax ñu mun cee rafet njort. Mm-hmm. parce que euh, euh, ci nit ki rek la dépendre en réalité. Mm-hmm. parce que booy seet ñi fi nekk ci nguur yëpp ñëw en général ils ont le contrôle mm-hmm. non seulement de la justice mais ils, ils se permettent de faire ce qu'ils veulent et de manipuler la justice parce que c'est des fois dañuy nekk dans des positions qui ne sont pas euh, euh, des positions confortables. parce que dañ leen sonal euh, opposition leen sonal donc ñuy profité ci loolu ñu ŋànk bi pour. terrasser ñi nga xam ne ñoom ñoo jàkkaarlook ñoom parce que ñoom dañ leen dominer politiquement en général quand le pouvoir en place euh, day du dafa dominer euh, dafa dominer euh, dafa dominer opposition bi mm. en général loolu du feeñ trop mm. bi muy moment bi muy feeñ dëgg-dëgg mooy quand justement le pouvoir en place est dominé par l'opposition moment boobu la ñuy jéem a profiter pour museler ñi nga xam ne ñoom ñoo jàkkaarloog ñoom profitant de l'avantage ñoom qu'ils ont mooy am benn en partie euh, ci benn contrôle si le pouvoir judiciaire léegi nag loolu loolu ci ci nit kii la mais loolu kenn mënu koo defar ou alors il faut plus ngeen wax séparation des pouvoirs parce que tant que séparation des pouvoirs mi ngi am et que am na benn contrôle boo xam ne exécutif bi am na ko ci ci ci judiciaire bi c'est impossible nga mën nga ne loolu tout le temps day dox lenn rek moo koy doxloo amul formule bu ko mën a régler définitivement leen rek moo koy doxaloo muy l'honnêteté l'intégrité et la moralité de ceux qui sont au pouvoir même bu fekkee dañu nekk dans des position de faiblesse parce que opposition bi domine leen ñu bañ a profiter ci situation boobu pour museler ñenn ñi parce que dañu am le contrôle du parquet lan la ñu war mën a def tey jii nii pour contrôler le parquet man xaw ma ko très honnêtement parce que euh, bu fekkee ne danga ne rek bëgguñu république des juges ça veut que ni il faut nga continuer di am euh, loxo ci justice bi parce que vous n'avez pas le choix parce que bu fekkee ni da nga ne euh, euh, da ngay génne sa loxo ci justice bi ça veut dire que juge yi ngay jox doole bi yëpp mais juge yooyu nga xam ne kenn falu leen nan ngay def ak ñoom ça serait très très difficile parce que ñooñu faluñu leen nga jox leen doole boobu ñoom tey ji ni mun nañ yeewu li nga doon bañ parce que yow da ngay gouverner wala opposition bi bañ ko ci ki nga xam ne moom mooy gouverner juge yooyu mën nañ ko def alors que ñooñu faluñu mën nañ comprendre mu am yenn attitude parce que moom la majorité réew mi teg ci place pour ñu gouverner ci benn diir donc loolu sax mën nga xel mën na koo nangu c'est juste que rek ñoom ñoo war a mën a am l'intégrité et morale nécessaire pour xam ne euh, euh, dañu war a jiital dëgg kese mais loolu ci kan la dépendre mi ngi dépendre ci nit ki nit ki su suñu dundin parce que da nga remarqué ni loolu musul changer Ablaye Wade faisait pareil ak euh, ak la justice toog na fi benn jour mu ne man euh, euh, Idrissa Seck maa ko téye woon mais maa ko bàyyi parce que tout simplement. j'ai vu que ni deful dara. il s'agissait du patron de l'exécutif qui le disait pendant que la justice était juste à côté. Abdou Diouf faisait ce qu'il voulait. ak Abdoulaye Wade moo ko doon tëj di ko génne di ko dugal heure bu ko neex mu génne ko heure bu ko neex mu ne ko kaa ñu liggéey. bu paree mu yóbbuwaat ko ci kaso bi et cetera. parce que tout simplement parti boobu mu am ci contrôle justice bi. moo ko indi woon léegi euh, euh, Macky Sall bi mu ñëwee gis ngeen aussi dérive yi nga xam ne amoon na par rapport ak. Euh, maa ci sama conc Mm. maa si teg sama conc est-ce que war na see mën a teg concam mm-hmm. c'est ça même bu ko waxul woon est-ce que war nañu mën a toog xalaat ni président am na possibilité yenn dossiers yi mu teg ko ci concam mais en même temps bu ñu naree jël Cheikh Diane Gomis parce que am na loo xam ne def na ko te Cheikh Diane Gomis enjeu la enjeu euh, sociaux ou enjeu national la mm-hmm. moom Cheikh Diane Gomis je ne veux pas social mais national mm-hmm. Cheikh Diane Gomis buñ ko def na euh, gila gilawaale am na seddaan bi dañ koy téye wala duñ ko téye seddaan bi bu ñu ko téye am na ak doxalin réew mi sociologiquement wala parce que Cheikh Diagne Gomis religieux la par exemple. Mm-hmm. mu def erreur ñu war ko traité ni ñu traité. Mm-hmm. le citoyen Alioune Sow. Mm-hmm. eh ben wóor ma ni bu ni ñu war a bu fekkoon ni même cas bi la Alioune Sow citoyen normal li ko dal li li mu def ba ñu téye ko moom citoyen ordinaire Alioune Sow. ñu téye ko mun na coow mun na bañ a jib que par rapport ak Cheikh Tidiane Gomis bi nga xam ne xam nga mooy kan moom moom moom euh, euh, euh, kii yam xaw ma nu ñu koy waxatee kii yam maxaamaam ci réew mi faisant que ni bu ko téye xëy na mun na indi déstabiliser kii wu kii réew mi mhm. est-ce que moment boobu président war na mën a jël mbiram coocam teg ko ci dossier boobu parce que dafa am loo xam ne mën na ci profité mooy doole bi mu am ci kaw justice. Hmm. question ba ma la bëgg a poser rek parce que xam naa mooy. Ah. Euh, le modèle américain ak le modèle français ban moo est-ce que euh, est-ce que mën nañ ko adapter ak ak ñun. ci euh, maanaam liberté wu juge yi. je pense que ni difficilement. difficile xam nga lu tax. même presque impossible peut-être dans cinquante ans dans cent ans quand on aura changé d'état d'esprit wala wala wala sociologiquement suñu jikko yi nan lay mel xam nga maa lay laaj nii tey jii nii kilifa réew. xam nga bu fekkee ne aux États-Unis la. Trump ñu ñëw woowaat ko léegi nii defal ko benn bagage. Mm-hmm. Mm-hmm. amul amul problème. wala Sarkozy wala wala Sarkozy wala sax un évêque. waaw wala un évêque mm-hmm. anglican ou tout ce ko vous voulez aux États-Unis benn benn kilifa diine foofu. am problème ak nit euh, foofu euh, amul ay kii dangay dem toog. ak noo mënti toog waaye waaye fii nii tey jii nii am na yoo xam ne ñaanuñu ko yàlla bés bu amoon. ci yenn nit ñi. est-ce que président moment boobu lan lay def est-ce que dina jël kiyam teg ko ci kuddam parce que mooy gën pour équilibre réew mi. ça va être affaire bi affaire que tàmbaliwul démb Goulet Ndiaye li xew ca ca ca Kébémer ba ñu jàpp ay ay policiers. ne leen arrêt de rigueur ci affaire doomu Mansour Faye waaw ah dégguñu benn autorité ñoom ñi ne jubal jubanti war nañ wax de ñu leeral ñoom même police génnee na communiqué mais ñoom mhm. war nañ wax pourquoi parce que y pas de corrupt euh, corrupt euh, corrompu sans corrupteur pourquoi kooku elle est elle est elle est elle est elle libre comme de l'air alors que policiers yooyu ñu téye leen def leen année de rigueur ñoom ba nga xam ne seen risque radiation mu ngi ci bi pourquoi lu tey tey ministre de la justice war na leeral ministre de l'intérieur war na leeral onu les sénégalais veulent des explications sur ça xam loolu parce que tamit boo nee euh. rupture comme li nga wax jub jubal jubanti yaa ko woote <coughs> ah mais tamit am na yoo xam ne nag day day teye xel. xam nga fële fii sax ñun affaire justice la ñuy wax. waaw mais yow phénomène de corruption ngay wax nii. waaw mais xam nga justice tamit dafa ëmb loolu parce que yow mënoo lu am scandale boobu am boobu justice yow ubbuloo l'enquête waxoo ci communiqué. parce que tamit c'est la crédibilité de l'État. daa mel ne réponse indi na ko sax Théo Aliou parce que buñ euh, Cheikh Diagne Gomis dafa la laaj est-ce que modèle américain ak français bi mën na mën nañ ko am Sénégal mën nañ ko am bu fekkee ne lii di corruption mu ngi fi ba tey. ah mënuñu adapté ak ñoom seen système démocratique xam nga xam nga cas bi cas bi mënuñu si wax ba dugg ci détails yi parce que yeggul ba fa mbaxane doonee benn waxuñu waxu waxu fii nii waxu justice fii nii dafa am loo xam ne daf fi xew. ci benn mais Aliou lii. lu mel nii lii scandale bii ñu dégg ko normalement. mais procureur war na auto autorisé ubbi l'enquête pour xam parce que munoo mënoo jël lu lu mel ni lii parce que bu ñu nee nit ki dafa jéem a dugg ci corruption. corru corrompu fu mu amee dafa a am corrupteur corrupteur boobu tamit dañ ko war dañ ko war woo pour dég pour déglu ko loolu mooy yoon. mais mënoo ñëw ne kii corrompu la te corrupteur bi moom kenn du ko woo muy leer muy dox muy dox nu mu bëggee kooku tamit euh, Aliou. kooku kenn mënu ko xalaat tamit ci justice. en réalité je de la justice man au sommet euh, waxuma waxu corruption waxu waxu justice lay wax ca kaw nan la ñu war a mën a def parce que euh, dafa am problème ci réew mi. mooy suñu justice dafa am nu mu tëddee. waaw te ci justice boobu dafa am koo xam ne dafa nekk ci kaw justice boobu euh, euh, parce que équilibre des pouvoirs amul véritablement donc mënuñu di toll foofu. di wàcc ba ci benn cas particulier de corruption. Euh, pour joxe ko un exemple justice beneen ah, warul am benn affaire ci man justice. Ah. lépp li nga xam ne dafa. concerne citoyenneté il faut sama sama sama chronique. ci ni ma ko bëggee waxuma waxu Mansour Faye mun naa ci def sujet après demain wala beneen yoon. ci cas boobu mais waxuñu waxu les cas de corruption au Sénégal je ne veux pas divaguer dans ce que je suis en train de dire je parle de la justice. mais c'est pas une divagation. je dis que on veut faire mais ma bàyyi ma yeggali sama waxtaan xam nga la. mais non euh, divaguewul non non mais c'est bon là. Ah, non non divaguewul c'est-à-dire que euh, dañu citer benn benn. non euh, léegi on est là pourquoi là. Euh, non mais bu ma bàyyi leen ma ma chronique jóg dem sama yoon. non boo bëggee nga poser may question ma tontu après ñu dem ne ma parlez pas de corruption alors que je suis en train de parler de justice au Sénégal. non mais point de vue ay questions lañ may poser la chronique c'est moi qui l'a fait man maay chronique. actualité su ma paree chronique ñu laaj ma comme Cheikh Diagne Gomis ni ma ma question mu naan ma question ñeneen posé ma question ñu jàll ci leneen. continuez après on va plus parler. continuez après après. lii euh, TF la wala lan la non non non je vous en prie aussi. TF la wala lan. wala kan mooy def ko wala mooy kii yëg lan lay def yow comme chronique. Euh, jóge Aliou Aliou ça va continuer s'il vous plaît. Mhm. fan lañ toll woon. Aliou du TF nag dañuy waxtaan nous sommes tous des. Euh, on me pose des questions. de toute façon dinañ ko régler léegi nii. s'il vous plaît ah d'accord. non dama ne man je suis là je suis je suis en train de faire. wala léegi chronique bi parlez de la justice mais bu leen parler à multiple léegi. non mais vous parlez du sommet non non. on n'a ah pas besoin de. Euh, non c'est terrible quand ci affaire Mansour Faye bi c'est un sujet sur lequel man ma ñëwee su ma neexee ma génnee ko. mais là du loolu waxuñu waxu Mansour Faye même si waxu Mansour c'est intéressant mais on ne peut pas en vingt minutes parler de tout là on parle de li Bassirou Diomaye Faye wax ci kii bi mu doon lu am solo loo xam ne dafa ne. ju juste euh, euh, république des juges warul am ci réew mi. man loolu moo ma intéressé république des juges te lool parce que loolu je le disais souvent chaque fois je le dis comme nag président wax na ko te coow gi bari na te xam nañu loolu mu wax am na importance te écho bu mu am ak man bu ma ko wax bokkul forcément lu jar réflexion la parce que dafay relever du cadre de séparation des pouvoirs qu'est-ce qu'on fait dans un régime de séparation des pouvoirs est-ce que véritablement xam nga il faut qu'on pousse la réflexion. mais, la séparation des pouvoirs peut être D'autant plus non, que mais... que les juges ne doivent pas être tellement indépendants. On ne doit pas avoir une république euh, des euh, tu, me poses plus, de questions parce que je n'ai pas le temps de continuer. Ah. non, parce que sinon, il me faut ñu toog ba midi pour loolu. tu me poses plus de questions. parce que bu ma yeggalee sama kii beneen yoon soo bëggee ngeen créer Walfadjri créer débat ci et puis bu waa ku nekk joxe xalaat. mais là il s'agit de la chronique. de la oui vous parlez de la justice mais vous voulez vous avez dit que vous parlez. Euh, euh, donc ci euh, hmm? bi ci sommet bi nga nga ngay wax au sommet vous parlez du par rapport au discours du Diomaye du président Diomaye Faye. Ah ah. voilà loolu nga wax. waaw xam nga loolu nga ne bëggoo ci dugal corruption. oui xam nga c'est pas xam nga question de justice. voilà kon continuer dafa bi réew mi dañu ne séparation des pouvoirs dañu ne normalement ci séparation des pouvoirs principe mooy équilibre. Hmm. ku nekk am sa liberté waaye par rapport ak li yoon teg. il se trouve que dans nos pays là d'Afrique subsaharienne surtout surtout on parle du Sénégal dafa am cas boo xam ne daf fi xaw a doy waar mooy un président de la République confirmé waat na ko Bassirou Diomaye Faye démb il faut que muy am à un moment donné di war a mën a teg loxoom ci justice parce que moom la ñu fal donc foofu est-ce que véritablement séparation des pouvoirs mën na fa am équilibre boobu ñuy wax est-ce que mën na fa am moo je pense que mën na am bu fekkee ni changé nañu type de régime Comme aux États-Unis, qui est un système que j'aime beaucoup. Parce que là, on parle de séparation des pouvoirs, mais yamuñu foofu. Comme je le dis souvent, c'est une séparation rigide des pouvoirs. Rigide. maanaam tey jii nii amul lu euh, euh, Joe Biden mën a def ci justice américaine mënul nekk c'est impossible bu caaf xamoon muy mbokkam muy machin muy kilifa évêque wala tout ce que vous voulez aux États-Unis wala wala muy un curé bu am problème mënu ci dugal loxoom c'est waaye moment boobu juge yi nekk foofu tamit dañu leen di fal am na juge yoo xam ne aux États-Unis dañ leen di loolu xel la aussi pour le Sénégal te loolu sénégalais baax na ñu koy xam comment les juges sont élus aux États-Unis leen di falee am ñoo xam ne leen di fal dañuy voté hmm. est-ce que xalaat yooyu la ñu war a xool ndax mën na nekk wala déet peut-être que ci assises yi bii danañ ci wax mais comme ñoo ci teel nekk on en profite pour wax sénégalais que loolu mën na nekk ay juges yoo xam ne leen di parce que lii problème mu fal la parce que Diomaye fay nee na ñun la fal juge yi kenn falu leen amuñu droit ñu leen di jox réew mi justice bi ñu ciy def lu leen neex parce que wóorul ki gën a tane te wóorul sax à 100 pour cent mooy ki ñu fal sax wóolu ko moom sax bu erreuree ñi ko fal nañu assumer seen responsabilité waaye ki nga xam ne faluñu ko loolu ça poserait un problème ñu jox ko doole boobu ba nga xam ne moom lay woowee république des juges ba nga ne lu leen neex ñu def et expérience boobu il y a 25 ans te loolu dafi war a jeex léegi nag problème moom mooy nan la ñuy mën a def pour loolu am loolu amul lu ñuy bind concrètement amul amul lu ko mën a solutionné li ko mën a solutionné lenn kese la. Mm. muy dépendre ci nit ki. nit ki moom nit ki mu am moral mu am mu am yu bari yoo xam ne daal comme li ma ko wax nii. Mm. benn sëriñ bu am problème fii au Sénégal. Mm. boo xam ne ay nit topp nañ ko mu def benn dégât comment on fait. Mm-hmm. je mets je mets mon coude en tant que patron de l'exécutif parce que j'ai am na benn forme de contrôle ci pouvoir exé pouvoir judiciaire bi donc j'ai la possibilité de mettre mon coude ci mbir mi je le fais ou je ne le fais pas peut-être que si je le fais parce que damay respecter yoon mais euh, parce que euh, si je ne le fais pas damay respecter yoon mais si je le fais c'est peut-être pour éviter yenn coow yi ci réew mi ay considération euh, les les les les retenir bu booba mais ce serait injuste en même temps parce que moi boobu. égalité de traitement dans la justice. Mhm. amul. d'accord léegi foofu nan la ñu fay def. Mhm. moo tax question bi Cheikh Diagne ko posé sànq. waaw mu am solo. d'accord temps bi nag. bon temps bi jeex na kon beneen sujet bi duñ ci waxati. Ah, parce que tout simplement euh, chronique bi il faut que ñu échanger parce que lii dootul chronique finalement lan la débat la xanaa. ne vous emportez pas quand même. s'il je ne euh, pas xam nga lu tax parce que léegi nee am temps bi jeex na beneen sujet bi. du ci wax parce que y a d'autres rubriques c'est pourquoi. non mais xam nga man rubrique bi euh, mënoon nañu wax ñaari ñaari sujets yooyu ñu wax noonu. sur la dissolution de l'Assemblée parce que on va pourtant c'est d'actualité parce que euh, Bassirou Diomaye Faye wax na ci mais non man là là on va pas en parler. parce que tout simplement on a polémiqué sur. lan sur ay cas de corruption boo xam ne bokkul woon ci sama sujet. vous avez d'autres occasions incha allah mais je veux juste rappeler que ni. chronique dafa am ay sujets yoo xam ne ci loolu la ñu war a wax. d'accord c'est tout. d'accord merci beaucoup merci euh, à vous. on verra. Euh,